man li ma jaaxal mooy dossier bi niñ ko niñ ko defaree baaxul wax naa ko démb parce que bu ñëwee en commission technique parce que débat bi wax nañ ci même bi ñuy def euh, la loi sur nag dañoo anticiper débat bi c'était de l'ordre du jour na tey en commission sur le blanchiment mm-hmm. dañ ko évoqué parce que li ñuy wax blanchiment leen rôle mm-hmm. donc on va mais bu ñëwee ñu ne ñu wax ñu loolu ñu ñëw en commission technique ñu jot résolution bi parce que man am na lu ñu xam nga début presse bi dafa ne waaw man la woon ak Guy Marius Sagna sanu Guy Marius Sagna on vote d' accord nañu pour voter ko non dañ ne sur le principe d'une commission d' enquête mooy suñu liggéey nag du ñu indi commission d' enquête ma koy bañ donc j'ai di que en tout cas man ak kii laa di la même chose nu sommes favorable et on soutient le PDS par rapport à la commission d'enquête mmh. ça c'est la veille mais quand on a reçu le document wax dëgg yàlla euh, li ma gis ci exposé des motifs li ma gis si considération yi c'est toujours grave ah bon? mais mm-hmm. pour la mise en accusation maintenant parce que attention xam nga exposé des motifs c'est pour motiver une loi c'est pour c'est pour motiver Euh, un principe à à à faire man bi ma ko jotee li ma gën a attiré sama attention on dit que article premier la commission d'enquête est saisie pour auditer le processus électoral. mais le processus c'est tellement long. c'est ah. depuis l'ouverture man jusqu'à la fin ah. quand j'ai vu jusqu'à le euh, pour, pour ça je vous laisse le document quand j'ai vu la proposition de résolution. d'enquête parlementaire en vue d'éclair en vue d'éclaircir les conditions de l'élimination de monsieur monsieur Karim Meïssa Wade et autres de la liste xam nga lii mooy boo ko liiree mais boo xoolee lépp ay kii rek motivation li am solo li nga xam ne nag ñun loolu la war a enquêter mooy proposition de résolution mm-hmm. la commission décide non l'assemblée décide article premier c'est l'article unique il est constitué une commission d'enquête parlementaire portant sur le processus électoral pour le scrutin présidentiel du 25 février loolu nañu sant sant ñu la dara lu dul lii le processus xam nga jusqu'à la proclamation en commission d'enquête ñu wax ko ñu wax mais xam nga temps yi le débat est tellement politique mm-hmm. des fois aussi mm-hmm. ma nangu leen muy muy législature bi yi fi mos a jaar yëpp mosuñu xam bi ku la wax am naa ci expérience day wax lu ko neex c'est pour la première première fois Sénégal confronté wu lu mel nii donc ñi koy gérer yëpp en vérité. xamuñu ko parce que lii mu ngi door am Sénégal. Hmm. yàgg ci assemblée nationale du tax nga xam lépp. yaa xam ne c'est le vécu moo na koy jox mais bi ñu ñëwee man déglu naa leen wax nañu mais quand je suis venu en plénière dafay dem quand j'ai pris la parole ñu xam nag ñun. c'est l'Assemblée nationale c'est la plénière maintenant qui donne mandat à la commission d'enquête d'aller enquêter enquêter sur quoi mmh. est-ce que on enquête sur tout le processus ou bien on circonscrit l'enquête sur un cas mmh. sur les faits de de de des de considérants maanaam mbiru gar bi ñu wax ak i ger wala dañuy commencer ci révision des listes électorales ou c'était une révision normale de six mois ñu def ko un un mois te boo ko defee ki def arrêté ministériel bi di nga ko woo laaj ko tu reviens le cas de Sonko mhm. tu reviens sur le cas de de Bougane mhm. sur le Bougane sur le cas sur le cas te loolu boo ko jëlee gaañi dina doy waar ça va nous des mois et des mois mhm. ou bien dañuy defaat entre parenthèses tu as vu uniquement limité ci administration accusation nañu ubbi débat bi sinon te loolu boo ko defee ñu bàyyi ko noonu ñu ñëw commission d'enquête bi on commence par le bas on commence par le haut problème si on commence par le bas yaa ngi ci affaire révision bi six mois un mois def nii nañu woo Antoine nañu woo kii Maguette Sapura donc loolu campagne bi démarré na ou day ñëw rek ne dañuy commencé ci décision conseil te loolu xam nga war a mënul ne gars yi nañu wax ci affaire bi parce que y a que la commission technique moo waroon jox plénière bi élément parce que la plénière ne discute pas des problèmes techniques la plénière est là pour faire un débat politique et pour voter mm-hmm. mais malheureusement on a raté la commission technique qui devait statuer sur le bi ñu jotee lii rek la ñu wax ah, ah gars yi gars yi dama déedéet lii fii lii ñoom non non non commission d'enquête bi dina ko régler mais man xam am ñaar ma jaaxal premier oratrice c'est Annie Mbengue qui est mm-hmm. Linguère responsable dafa jël parole rek na report ñun report nañu demandé commission Alimane je cite son nom dañoo ñëw avant la avant la veille avant ñu koy il prend la parole il fait des révélations extrêmement graves yéen waa PDS yéen waa APR da di dil pour reporter élection yi. kooku ban kii la bokk. Benno. Benno la bokk. Alimane di dil pour reporter élection yi. Benno la bokk te allié. non est-ce que Benno la bokk est-ce la bokk. Ah, non tax parti socialiste. parti ah, mu tourné nañu yéen waa taxaw. yéen waa Pastef yéen waa police yéen laay wax si vous tombez dans le piège vous serez tous complices on était obligé nag ñun. jóg wala ñu ñëw en commission technique le jour. loolu mu ko la ko non la veille. le jour de la commission c' Nicolas Ndiaye. de Benno qui reprend la parole. <laughs> qui qui qui qui qui tire plus que Alimane. mais c' est impossible c' est incroyable du fi am. on nag accuse notre candidat de corrupteur ñun ñuy taxaw di wax naan dañuy leeral c'est pas vrai il a refusé il a refusé il a refusé il a tiré sur la table démb ñoom ñaar ñëpp ñëwuñu ci plénière bi muy première inquiétude ñoom ñaar ñëpp ci ci plénière bi